ñu jotoon see def ñett ñeenti xalqa tey di suñ juróomeel mu mel ni am na ujoom yu ñu yónnee ginaaw boo xam ne wóote na jotaay ba yom doon def euh, ñaar yi nga xam ne ñoo ci gën a gudd benn bi jeexal nañ ko ba tàmbali woon boobu ñaareel bi démb te itam ci bu ñaareel bi moom la ñuy wéyal suñu waxtaan wi yeneen yi ci des itam danañ ci ñëw dañ koy topp rek comme nit ñu ko yónnee benn par benn ba nit ñuy jeexe euh, ndéggatul ñaareel li nag mel na ni am na ci lënt yu seetlu mbirum jéemale jéem a yemale baatu yadullahi ak yu ni mel ak yeneen baat yi démb ci lañ ne woon te itam am na yeneen xeeti lëntal yoo xam ne moor defaat na ci ñaareel boobu mu mel ni bokk na ci yi gën a fës mooy seet baat yi nga xam ne dañuy làmboo ci luxa ay yoo xam ne day làmboo ak manqué nga xam li mu teg ci luxa loolu lay manqué loolu loolu boo ko xoolee ba ci biir day làmboo ak manqué ci genn wet ni ki lu lu mel ni mer ak lu mel ni rida ak muaadaat ak yu mel noonu mu war nag doon ci jàng benn texte boo xam ne al imaamul baqilaani moo ko wax ci al insaaf euh, di wane ne baqilaani daa juum foofa juum loo borom xam nag léeg-léeg def ko euh, ba defee ne moo ci ne waaye bu sottee dana xam ne léeg-léeg mag ne ci gina aw tund di seen loo xam ne gone ga ne ca kaw tund wa gisu ko na day gone ci bunt bi bàqilaani nag di mag bàqilaani nag moom balaa ni sa wax ne juum nga war nga koo jàngat fukki yoon ndax bàqilaani moom xam naa ne xam-xam yi mu boole bari na ci ahlu sunna la bokk ci fonkal yi défendre sunna la bokk te yàgg na ci am na ci expérience kon ay waxam ku koy weddi rek war a war a waaj fukki yoon bala nga ko song biñ ko xoolee itam gis nañ ne moo juum fa muy juumloo fa muy jéem a juumloo bàqilaani moom joxam moo fa juum moor nag li bokk na ci li xaw a soof ci ay waxam léeg-léeg day wax rek loo xam ne ci cim xelam képp la ko teg léeg-léeg du indib aaya du indib xadis ba bu indib aaya na mu koy firi ak na ko ahlul ilmi di firee léeg-léeg day wuute kon mi ngi doon jàng fi foo xam ne suriwutoon fi al imaamul baqillani doon waxee naa ci ci al insaaf naa فإن قيل قد أثبتم أنه حي عالم قادر سميع بصير متكلم أفتقولون إنه يغضب ويرضى ويحب ويبغض ويوالي ويعادي وأنه موصوف ويعادي وأنه موصوف بذلك قيل لهم أجل في الإمام الباقي الله نيلون وخنا بفكي يندين وخنا يالدي الدندو دا أجي خملة أجي أتن لا أجي ديق لا أجي قسلة أجي أجي وخلة نحن دين دوخنا يتب يالله دانا مر ولا دانا قرم dana bëgg wala dana bañ wala dana euh, féete wala dana euh, noono ne ne ndax da ngeen di melal yàlla ci yooyu melekaan baqalaa di ne ko waaw ku nu ko wax kay nu ajal aha kay danañ danañ ko danañ ko melal yàlla kay ginnaaw bi nag al imam laa ni wëy di leeral melokaan yooyu lan lañ ci jublu ndax lislaam yooyu euh, mën naa lamboo aw ŋaañ ci genn wet boo ko falee ci genn wet ci seen yenn maana yi moo tax maanaam yi ñuy saxal ci yàlla day mat a leeral ndax démb waxoon naa ko noonu naa leen Aboubacar ibnul Arabi indi woon na ci benn qaayida boo xam ne ahlu sunna noonu la ñuy am na ci sifaat yoo xam ne euh, ak mat képp la yooyu da nga koy melalal yàlla lépp dangay ngay melal bu dee ak mat képp la baat bay tegtal da nga koy da da ngay melal yàlla noona bu dee ak manqué képp lay tegtal doo doo ko melal yàlla waaye itam bu loo xam ne am na wet googu mën naa laalug manqué am wet gu laalug mat wet ga mën a nekku mat rek foofu ngay mënal yàlla ca googa wet ndax xam nga dafa am ay muhkamaat am ay mutashabihat yi nga xam ne ay mutashabihat la nag bu dee ci buntu yi da nga koy delloo ci buntu ca muhkamaat yi ndax muhkamaat yi mooy leer nañ donte fii xaw naa wuute tuuti waaye bu dee baat boo xam ne làmboon na làmboon ak manqué ci ak wet moo maanaam gis ko mën a saxal yàlla saxalal yàlla kon moor daa wax ne Baqilaani daa juum fii li tax mu ne daa juum mooy maanaam im saxalal yàlla ci lu mel ni ar-rida ak al ak yu ni mel loolu nag danañ leeral ne ahlu sunna moo xam ña ca bokk ci achaira yi lañ wala ña bokkut naka jekk noonu Baqilaani doxe rek mooy seenu doxin ci bunt bii danañ ci indi ay texte ci ñi bokk ci ahlu sunna ci achaira yi ak ñi bokk ci ahlu sunna te bokkuñu ci achaari yi ndax ahlu sunna buñ ko waxee maanaa la moo xam ne làmboona achaari yi làmboona itam maturidi yi làmboona tamit xanaabila yi nga xam ne ñoo ahmad ñoo dëppoo da ci am nag ñoo xam ne dañuy tuddoo ahmad te wuuteeg moom ñu mel ni wahab yi ñooñu moom taxuñ taxuñu ñuy wax noon waaye am na ci am na ci xanaabila yoo xam ne ci ahlu sunna lañ bokk kon ñeen ñi dañ koy gàttal naa ahlu rayi wala ahlul xadis wala ñu ne الاشعار والمتروديه اك اك اك, أك, أك الاخريه ولا امنا خيت واحد يو بري بري دال واي نيت كوريل يو نيو بري بري بو نيو سن نيوم لا سي جوبلو سي بونتو بي لول نك ني سي بوكو اشعاري ني سي بوكو دا نين غيس ني لي باقي لا ني واخ ريك موم لا نيو واخ dana ci wax ay misal ñu bare bare ñom na noni ko bakkal la ni waxe nonu moy seen gis gis xeyna mubtadi ay xeyna wala ñu mel nonu ñoy wutel ñom باقي لا ندا أن المراد بجميع ذلك إرادته إثابة من رضي عنه وأحبه وتولاه وعقوبة من غضب عليه وأبغضه وعاده لا غيره بدأ ملني آه، يلا قرمنا رضي لن تبقى وخرج موي دانا جوخ بيوالكو في مقرم بنيت مرنا lañ bëgg a wax mooy kookee ñu wax ne da koo mere euh, da koy mbugal da koo bëgg a mbugal maanaa yooyu lañ jublu ci yu mel nii waaye jubluwuñ ci lu mel nii li nga xam ne bu dee mbindeef noonu lay mel nga xam ne day mer di xuura ka dala ka defiif loolu jomm na ci jëmmi suñ borom ji ndax euh, yàlla doonut koo xam ne ay situation yuy soppi kooka changé yooyu lu luy am yàlla loolu jëmmi loolu melokaanu mbindeef la kon da seet baat bi na mu méngoog sun sun boroom ak na mu yelle ci moom nga saxale ko nga saxale ko noonu noona loolu nag bàq lay di xut lu bees yoonu ahlu sunna la fi ne boo demee ci euh, al imam ibnu abdul bar nga xam ne moom doonte ma ci ci ahlu sunna lañ koy limaale waaye du ashari boo demee ci fi fi fi yoon fi xadis bi ñëwee يدب صلى الله عليه وسلم دوخنا يضحك الله عز وجل الى رجلين يالا ملني ظاهر بلي مل يالا داي ري جيم سي نياري غاي ابن عبد البر بن كفري داني واما قوله يضحك يضحك الله معناه يرحم يرحم الله عبده لي نجيب لك مو يالا دا يرم اب جامم عند ذاك مني وهذا مجاز مفهوم نين لي مجاز لا مو بو نيو لا ماني نجانغ عرب موم تا خامكو يو ملني يي وقد قال الله عز وجل في السابقين الاولين والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم وقال في المجرمين فلما اسفونا انتقمنا منهم واهل العلم يكرهون الخوض في مثل هذا وشبهه من التشبيه كله في الرضا والغضب وما كان منه min sifatil maxluqin kon yu mel ni yii noonu mu ko waxee arrida ak alxadab ngërëmug yàlla ak merug yàlla reeg reeg yàlla yu mel noonu ahlul ilmi duñ ci bëgg di xuus waaye baat yu am majaas waaye li nuru nii ci kaw waaxe ba du ko doon ndax xam nga ay reeg ay li nga xam ne gërëm wala kontaan wala mer dana ko def ci jëmmi mbindeef moom maanaam moom saxalal ko yàlla du yomb ndax da cee bari day jomb ci moom da muy def ci mbindeef kon léegi li fi des rek mooy xëy na nit ki mën naa tafu it bañ a dugg ci maanaam yi bañ ci xuus wala mu seet maanaam moo xam dana yell ci suñu borom comme ne ko bàq laa ñuy defe waaye leneen moom gis ko ca mën a def boo demee tamit ci usulu diin li jamaali diin ahmad ibnu muhammad al ghazanawi dafa wax ne wallahu taala yaxdabu wa yarda laa ka ahadin min alwara ay yasiru alabdu mustahaqan li rahmatihi fa yadxulu aljannata aw mustawjiban li azabihi fa yadxulu nnaar boo déggee ñu ne la yàlla dana mer wala dana gërëm kat xamal ne mer ma lañ ci jublu mooy euh, jaam bi dana yeyoo mbugal dugg sawara waaye itam gërëm gi itam lañ ci jublu mooy jaam bi dana yeeyoo yërmandi yàlla dugg àjjana kon da ci am maanaa yooyu dañ koy saxaale na mu yelle ci suñ borom waaye li gën a xoromu sax ci li nga xam ne moor moom la bëgg a juumloo al imaamul baqilaani al imaamul baqilaani mooy lii nii baqilaani yi di firee rida ak xodab ak yamaandal boo demee da ngay gis ne sax weesu na sax kenn ci ahlu sunna di wax loolu waaye ahlu sunna dañ caa dëppoo muy ijmaa danaa ci joxe ñaari borom xam yoo xam ne kenn tëbliwu seen borom seen xam-xam kenn ki di awal xasan al ashar yi nga xam ne mooy imaamu ahli sunna mooy demee ci téeram bi ñuy wax arrisalatu ila ahli sagri nee na wa ajmacu ala annahu azza wa jalla yarda an altaaicina lahu wa anna ridaahu anhu wa anna ridaahu wa anna ridaahu anhum iradatuhu li naimihim wa annahu yuxibu altawabina wa yasxatu ala alkafirina wa yaxdabu alayhim wa anna xadabahu wa anna xadabahu iradatuhu li azabihim nee na dëppoo nañ ci ne ahlu sunna dëppoo nañ ci ne yàlla dana gërëm ñi nga xam ne ñoo ko topp waaye gërëmug yàlla kat mooy nammagum leen a nam ma jox xéewal loolu lañ jublu ci gërëm gi kat dana bëgg tamit ñi nga xam ne ñooy tuub dana mere yéefari waaye merum yàlla nag nga xam ne li ci jublu fii mooy nammagum leen nam ma mbugal waaye kon nga gis ne Baqillaani di lut topp ahlu sunna te kenn la ci kenn la ci ahlu sunna Abul Hasan al Ashari ma toll bal sax mooy seen imaam comme ni ko sukki melale ak ñeneen kon lu jullit ñi dëppoo moom la Mor Kébé ñëw ne euh, du noonu ni daa juum kon nag loo xam ne ahlu sunna ñoo dajaloo dëppoo ci def ca ijmaa Mor Kébé ne dañoo juum te xam naa ne te gën a ndaw si ñoom mën naa jàngal Mor Kébé at yu dul jeex rawatina ci buntu bi sax nag waaye ndax loolu rek dooy na ma indiwaat keneen boo demee ci borom xam bu mag a mag a mag di xaafis alxaafisul kabir al qurtubi ibnu qittaan ibnu qittaan al faasi waaye demee ci téere bi ñëw xal iqnaa al iqnaa nee na وأجمعوا أنه تعالى يرضى وأجمعوا أنه تعالى يرضى عن الطائعين له وأن رضاه عنهم إرادته لنعيمهم وأجمعوا أنه يحب التوابين ويسخط على الكافرين ويغضب عليهم وأن غضبه إرادته لعذابهم كن même la Abul Hasan al arsaltu ila ahli sarar beneen borom xam xadis bu mag nga xam ne ak wàllam lay wax nga xam ne asar yi wér ak yi wérut ci asalaf saalih sax moom spécialiste la ciy doon muy alxaafid ibnu alqattaan alfaasi mu ne ñi dëppoo nañ ci ne nee baqilaa ni firee al odab firee ko rida nooni eh, dëppoo nañ ci kon yoo xam ne dañ caa dëppoo te ña ci dëppoo duñu ay gone ay ponkali borom xam lañ marke bi ñëw ne gaa yooyu dañoo juum te it indiwut wenn firnde am xelam am xelam day fekk di di ko weddee loo xam ne ay borom xam yu bëree bëri ñoo si yàgg gëstu yàgg caa xalaat xool li yell borom gën koo xam muhkam gën koo xam mutashaabih gën koo xam li nga xam ne naqs lay tekki gën koo xam li nga xam ne mooy eh, alladi yaliqu billahi yooyu yëpp mu tëb ne dañoo juum te benn firnde buy wane ne dañoo bi nga xam ne itam mooy suñu ñaareelu tomb mooy wax ji Mor Kébé wax ne gaa yi dañoo wax ne yàlla ay jëm yàlla jëmam mënta doon lu am ay xaaj tegtaloo baat bi ñuy wax al ahad waaw xam naa mu war nag dafa mel ni daa jëngu téere sëriñam yi loolu nag bari na ci waxaab yi bari na loo dégg ñu naa sëriñu tasawuf wax na nangam bu ñu déglu seen sëriñ ñu xey mbañ jang seen téere dañ gis ñoo ñooñu wax nañ ko da lo xam mbolo ko nga jékki-jékki bu ko féetali benn kuréel loolu ci moom sax mo ndi ko xorom waye non ñi def ci tasawuf tamit bu re ci buntu bi it dañ koy def dañuy fekk lo xam seen sëriñ ña ko wax ñu ne asaari ñoo ko wax and ak ne sax ashari ri dañ ca juumut sax nak moom ay borom xam-xam lañ xam alquran xam hadith bu jàngee alquran ba li ci fere nako ah, ki koy wedd da war indi firnde wane ne loolu wérul waaye wërta tëb rek jékki ci ne gars yi dañuy juum fii rawat na koo xam ne ci taalibu alma nga ci jàng nga toll boo demee ci majmuul fatawa xaaju ñetteel bi page cent da nga gis ibnu taymiya na annawcu thalith wa huwa qawluhum wa huwa waxidun la qasima lahu fi da fi datihi wala juz'a lahu wala bu'da lahu mu ne wax ju ñuy wax ne yàlla kenn la amut euh, ku ko ñaareel ci jëmmam wala ab xaaj nga xam ne yàlla jëmmi di ko dox yàlla defi xaaj wala lenn yàlla yooyu di ko wax tim tey mais dane abaat la boo xam ne mën naa la am yu bari dafa aaji teqlee abaat la baat la boo xam ne muñ mal la ndax yàlla mooy axat mooy somat mooy ki nga xam ne jurut te kenn jurut ko te kenn doom nawleem kon yàlla tim tey mooy wax de doonut loo xam ne mën naa teqli wala mu mën a def ay xaaj wala mu doon loo xam ne dañ koy toggale ci ay xaaj kon ibnu taymiya lii nga xam ne moor nee na gaa yi dañ koo tegtaloo ci ahadu wax ko ne yàlla mënta def ay xaaj ab sëriñam wax na ko nee na laa qasima lahu fi datihi wala wala juz'a lahu wala baada lahu nee na loolu nag lafdun mujmalun fa inna allaha subhanahu ahadun samadun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 page 184 moom itam waxa texte boobu ñëwaat na fa kon li nga xam ne sëriñam wax na ko moom lay tuumal asaari yi boo nekk di firi naa dañoo juum xam naa sax man nangu naa nga ne gars yi dañoo juum indi ay firi na bu fekkee mën nga ko te ko waaye gars yi ñoo wax lii fekk yow sëriñ wax na loolu nga bëgg ko féetale ñenn ànd ak ne sax man njuumte daa ko fi gisul nag moom waaye bu fi amoon sax askan ko asaara asaara yi dong moom ki ko def day ko xeetu njuumte la ci moom <coughs> waxaan na itam lu xorom muy ak sifaatu ak sifaatu salbiya gaa yi jëkkwuñ sifaat loolu nag wax ju xorom moo xoromu la moom xam naa li ñuy dégg ñu naa xiya eh, yes yes lu bu wala yu mel noonu defe naa moom la déggut al aqida al ashariya nag da ki kii ko jàngut léeg-léeg bu ci duggee li gën a bari buy wax ñi ko jàng buñ ko déggee léeg-léeg ree di leen di jàpp waaye de ak sifaatu salbiya de lu bari ci asaayir dañ koy melal yàlla xam naa boo dem dama mën naa laa xool sax yi ngay njëkk a tàmbali ba xëy na sama nga wala feneen bu Xasaali waaye ci bëree bëri da ngay gis ne dañ koy sukkandikoo di dàqal yàlla ay naqaais waaye di ko limaale sax ci sifaat yi ci yenn téere yi comme lu mel ibnu Ashir yajibu lillahi alwujud wal qidam kana al baqa wal ghina al mutlaq am wala nga dem ci euh, euh, mawaahibul qudus bu Sëñ Tuubaa wala Sanusi wala foo ci dem rek ci téere asaa'ir yi ngay gis ne albaqaaw ak alxina ak alqidam ak alwujud ak ak muxaalafatul xawaadis ci sifaat yi lañ koy limaale ñi koy limaale ñaar fukk ci ñaar fukk koy limaale ñi koy def ko ñett tamit nga xam ne duñ duñ indiwaat duñ léeg-léeg duñ indiwaale maanaam yooyu <coughs> yëpp dañuy limaale yooyu sifa kon wax yi limaale ko ci yi moom sifaat moom loolu wax du xoromoo xoromu longu beneen njuumte bi nga xam ne itam moor def na ko ci ndéggatul ñaareel li nee na gaa dañoo juum maanaam bi muy jàng waxi bàq laa nit ji euh, dafa wa yajibu an yuclama an albaariya caalimun bi cilmin qadimin متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف علمه بأنه مكتسب ولا ضروري وأنه قادر بقدرة قديمة شاملة مي جان واخ يعني جوجي دافاي واخ واخ جو غراو دافا واخ ني اشاعري دانيو سخال خام خام بيال بو خاني دانيو واخ اك مبولم صفادي قديم لا صفادي ملني nga xamne dañu bëgg wax ne li la lépp yàlla xamoon na ko waaye xam gi ko yàlla xam nag ci azal la foofu nag moor jumlo a saari yi xam ne daa saxal geneen xam gu bokkut ak googa maanaam jamono ji mi am yàlla yitam xam na ko mu bëgg wax ne asaari yi nag ñoom dañoo saxal rek xam-xam boo xam ne doonut lu mën a bees waaye xam gu yàgg dong mu lañ saxal waaye euh, donte nag mën a xam gu yàgg ga daa bëgg indi geneen xam gu bukk te googa goo xam ne daa bëgg a wax ne googa itam dafa am te asaari yi euh, saxaluñ ko mu sukkandikoo ci jàng ay aaya yu muy tegtaloo ci waxam joojee xam naa foofu nag moom li ñuy wax naa kaarisa la bokk na ca yi muy jàng am xasibtum an tadxulul jannata walamma yaclami allahu alladina jahadu minkum wa yaclama sabirin di bëgg wax ne kon suñ borom jamono yi mbir mi am mi ngi koy xam moom itam loolu nag xam naa ne moor dafa comprendre al madhabul ashari booy demee ci gaayatul maram bu al amidi di kenn ci kii dafay ashaire yi da lay wax ne la amidi da lay wax ne la fa in taallaqa al ilmu bil kainati mimma la yujibu فإن تعلق العلم بالكائنات مما لا يوجب تجدد العلم ولا الجهل قيل السابق هو العلم بأن سيكون هو العلم بأن سيكون الشيء هو نفس العلم بكونه في, وقت الكون ما أنا بفكي إنك خمناني فرسام سامل منكم مثالي كي دوم آدم بفكي يو خمغاني زيد ني دانا دوبي تكرجي بياد دوكو خمون jamono yi nga xam ne Zayd mi ngi dugg ci kër gi xamoo xam gu bees waaye di sul wax ne da war a xam nga neen xam ndax njëkk njëkk dëgg la sax xamoon nga ne dana dugg ci kër gi waaye jamono koo xam loolu di di sukkandiku di wax ne ñaari xam yi bokkut ndax xam nga nga xamoon ne Zayd mii dana dugg ci kër gi mooy xam gi bi muy dugg ci kër gi it même xam googu rek la gu bees amaatu ci ndax yow fàttewoo ko fi juumoo fi euh, bu dee yàlla moom <laughs> genn xam gi lay doon ndax moom lépp benn la fa moom na xamee woon ca xiram ne zayid dana dugg ci kër gi jamono yi nga xam ne itam mu ngi dugg ci kër gi genn xam googu rek amul lu soppiku ci moom kon diisul wax ne loolu ñaari xam yu bokkul loolu ku koy def yow déggoo sax masala bi ci bopp euh, bëgg koo def ñaari xam yu bees koo xam ne xam na lépp nga ne xam nga mu xamoon ci azal ak ak bi mbir muy dooraam ñaari xam yooyu duñ benn loolu ma ne wax ju xoromoo xoromu la Euh, ndax lu bees mu amatu ci genn xam nga mu yoroon rek moom la yor jamono yi mbir muy door am xam googu dong <laughs> gam xamoon googu ak jéemu différence genn xam nga euh, moo tax euh, boo demee ci gaayatul maram amit yi wax loolu wa ñëw na tamit ci tontu bi itam ñëwaat na ci charxul mawaqif bu jurajaani nee na ñu bari ci as sëriñu asaari yi tontu nañ ko ndax nee nañ bi anna al ilma bi annahu ida wujida cheyu wala ilmu bi annahu sa yujudu waaxidun al ilmu bi annahu wujida cheyu wala ilmu bi annahu sa yujudu waaxidun fa inna man alima anna zaydan sayadxul sayadxulu sayadxulu albalada gadan fa inda xusuli algadi yaalamu bi hada al ilmu annahu daxala albalad nee na koo xam ne xam nga ne Zayd mii dana dugg ci dëkk bi laata Zayd dugg ci dëkk bi xamoon nga loolu jamono yi Zayd di dugg ci dëkk bi itam xam nga nga xamoon na dana dana dugg ci dëkk bi rek xam nga moo continué ba léegi waaye di si loo xam ne da xam xam xam gu bees kon bëgg a teqalee ñaari xam xam yooyu ci boppam sax moo njëkk di erreur ndax xam nga mu xamoon bu yàgg rek moom mooy gi fi nekk ba tey jamono mbir muy am itam xam googu rek la waaye amul geneen xam gu bees bu gu ci bu fi am ida kaana ilmuhu mustamirran xam ngoo xam ne fàttewoo ko defoo ko xam nga yëf ne bilaa xam ne si nga xam ne amul a dal ba nga sàggan ko euh, kon bëgg a seqale ñaari xam-xam yooyu moo njëkk di erreur rawat na nag yémoo ci bëgg a juumloo asaaciri boole ci moo tax mu continuer na daal ne wa innama yaxtaaju ahaduna ila ilmin axar mutajaddidin يعلم به أنه دخل الآن لطريان الغفلة عن الأول بدي في هذا النفات لك خينا نيوم من نكو خمون بياغو يالي نفات واتكو جناو بي واجي دو جنجو دور كو فات لكو وات لو وايلو لبور من ديف يالي نكو فات مو يالي بجان خم جيمي خم ريمو يكون نبتاي أمو لين لكي دول لكو عندنا نسخ لولو <laughs> سن برام سمم ديكو خايمة شي جامونا مم ديكو فروم نمم ليب بيان لفهم Hehehehe <laughs> xam-xam bu yàlla mën naa ajowandoo sax ci mbir yu bëree bëri te genn xam gi lay doon loolu sax boo demee ci almawaqif day wax ne kasaratu taalluqaat bukkut ak wanewut tekkiwut ne xam-xam yi dañoo wuute duñ benn balil il ilmu waxidun tataaddadu taalluqaatuhu boo demee ci charxul mawaqif lil jurajani boo demee sax ci xaayatul maram amidi leeral na ko ci beneen beneen façon nee na gis nga jant bi day fenk tàppe ci suuf booleeg suuf melokaan yu bëree bëri ñooy am weer yi li ñuy wuuteeg couleur yi bu jant bi fenk ni muy ci mi ni mu ni muy wuuteeg waaye tik loo loo loolu jant bi dal ñu wuute nuñ mel tikkiwut ne jant bi day ñaari jant wala yooyu benn jant bi rekk kon melokaan yàlla aju ci mbir yu bëri tikkiwut ne jëmmi melokaan bi jox moom moo bëri ba demee ci euh, amidi ci xawatul moram Euh, joxe na misaal mu mel noonu kon meen mbir mu aju ci mbir yu bari mu tax nga jël mbir yu bari yooyu bëgg ko mbir ma ci boppam ndax mbir mën naa nekk benn ba dafa ajondoo ci ay mbir yu baree bari kon waa ji jàngaat ba agsi ci melokaani eh, fii fii alimaamul baqilaani di waxe naan wala yuqaalu innaha huwa wala gayruhu wala sifatuhu mutagayiratun fi anfusiha mu dem ba mu yàgg mu ne wa dalilu ala anna sifatihi la yuqaalu laha hiya huwa أنها لو كانت هي هو لكانت خالقة فاعلة مثله فلا يجوز أن يقال هي هو ويدل على صحة هذا المعنى قول علي عليه السلام في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولا مخلوق لأنه لو جعله خالقا كان إلها ثانيا ولو جعله مخلوقا لوجب أن يكون الباري موجودا بلا كلام كون علمه مباقلاني يعني وحجي وحجي ويرله mooy melukaan yàlla doo doone melukaan yi rek ñoo yàlla waaye doone du yàlla itam ndax doone du yàlla ndax xam naa sax ku xalaat sam xel xam ne euh, euh, wax ju juba ngi xëy na xel yu lëndëm yi ñoorul mën a xam waxi ahlu sunna léeg-léeg ndax yàlla kenn du ko teqlee ci melukaanam waaye doo wax itam melukaan yi dong ñoo yàlla itam te it bàqilaani da koo teg indi waxi sayiduna ali ibnu abi talib ne loola da koo tegtale na Aliyu dafa wax ci alquran ne alquran du xaaliq du du du doonut luy bind moom alquran kon du yàlla nag bu doon yàlla mën a bind moom yàlla dong koy def xalku maanaam créé mbindeef yàlla rek moo koy def kon ginnaaw du xaaliq du yàlla moom kon diisul wax ne alquran yàlla la waaye itam diisul wax ne maxluuq la itam dañ koo bind diisul wax ne dañ ko bind moom itam kon du mbindeef itam kon loolu mën ne melokaanu yàlla di wax ne moo yàlla di su wax ne itam euh, doonu ko wax ju wér a wér la joo xam ne waxi àll yi ji muy nekk li tegtale na ko ni ko waxee ndax alxuraan di su ne mooy yàlla ndax bu doon yàlla mën a bind mën a kere ndax yàlla moom lu ko doon rek mën a bind waaye itam di su wax ne bindeef la itam kon fii mu taxaw defe naa ne gone du ko fi ndax wax ju leer lay wax joo xam ne yëmut sax ci wax ko waaye da caa indi ab tegtal te waxi saxaaba ne bu fekkee wér na ne Aliou moo ko wax moom waxi saxaaba jumel nii nga xam ne gis ko wax ci mu xel daanaka léeg-léeg sax xukmul marfoo lay wax ànd ak ne wax la joo xam ne même sax ci xel lu wér la melukaat yàlla mu duñ bindeef <laughs> te yi mënoo ko deq la yàlla itam waaye itam melokaani yàlla itam duñu duñu du duñu yàlla ndax bu doon yàlla mën a man a mën a bind ñoom dong beru kon li ñuy wax rek yàlla ci melokaanam dañuy wax ne yàlla eh, am nay melokaan loolu la ñuy wax melokaan yi gisul wax ne ndax bu doon yàlla mën a créer waaye duñ bindee fi itam moo tax bàqilaan yi teg ci ne bu fekkonte ne ne ne ne ne li annahu law jaalahu xaaliqan kaana ilaahan saaniyan bu fekkoon ne defoon nañ ko loo xam ne muy muy alquran bu fekkoon ne àll wi defoon na ko muy xaaliq nga xam ne koo xam ne mën naa bind mën naa créer boobaa day daal melokaan bi dañuy daal nekk yàlla ju bees ju jubu ko jenn yàlla ji walaw jaaluhu maxluqan la wajaba an yakuna lil baari an yakuna al baari mawjudan bila karam bu fekkoon te ne mbindeef lañ ko def itam kon loolu la muy indi rek mooy nga bëgg a saxal yàlla joo xam ne du wax man yàlla joo muti melokaan loolu it mënta ne kon Baqlaani moom li mu bëgg a wax da koo misaal ci misaal mu leer nañ xëy na nag euh, ñàkk ko moo ñàkk ko mu moom ci mu xelam la waaye ci wax ji euh, kon day mel ni boo noon Euh, euh, alxuraan dañ koo bind la ngay indi rek moo yàlla yàlla newoon na fi te te ba noppi door a alxuraan yàlla créé wuti waxam ndax melukaan yàlla tëmbali wut fenn ñoo ji moom ñoo mës a ànd kon diis ko teq léegi yàlla waaye diisut wax nañ melukaan yi dong ñoo yàlla itam kon wax ñu leer nañ ñi la bàqilaani wax fii muy wéy di jàngaat texte al imaamul baqilaani bu mu yàgg mu ne way jibu an yuclama anna ru'yata jaizatun alayhi subhanahu wa taala min xaytu al aqli maqtuun biha lil muminine fi l mooy wax ju leer nañ ñi joo xam ne benn lënt waaye mu acci ba lënt lu na ko nee wax gi mu wax ne jaayis la nee na loolu wérul lu wér mooy mënta nekk xam nga nag gaay yi nga xam ne jànguñu al aqidatu ashariya mooy li may wax rek toujours saa yuñ ci duggee rek faw ñu am njuumte yu ñuy def ndax dañu comprendre baar yi ci boppam bàkkalaan saxalut fenn yàlla def na ko gis ci àdduna loolu bàkkalaan saxalu ko bal lam wax ne moom mooy la ñu dogu moom mooy jullit ñi dañ ko gis àllaaxira waaye waxut ne adduna dañ koy gis baax leen wax ko waxu ko waaye la matoon mooy baatub jaayiz mooy lan ci buntu bii bu dee buntu bi am na ñett yu ñuy wax dañuy wax al wujub mooy loo xam ne mënta ñàkk am lu ñuy tuddee al istixaala mooy loo xam ne mënta am am lu ñuy tuddee jaayiz mooy loo xam ne xel nangu na mu mën a am waxuñu ne day am de waaye waaye xel nangu na mu mën a am te ku ne xam na ne doon bu dem xel rek la bu fekkee mën naa gis yàlla ci àllaaxira xel bu dee bu doon xelum kese du dàq ñu war ko mën a gis ci àdduna waaye nag ngir wax ne dañ ko gis ci àdduna loolu daay des ko gis ngir wax ne des koy gis ci àdduna loolu daa jëm dalil te dalil na ko gis ci àdduna ndax ndaw la mu went bi moo ko wax moom moo xamal ne duut gis yàlla ci àdduna kon xel mën naa tajwis dara ba noppi dalil ñëw wane ne loolu mu tajwis du am kon chatta euh, chattaana baynal jawaaz wal wuquu bari na loo xam ne xel nangu na mu am waaye amut ndax la tax nga xam ne du am mooy ab dalil moo ñëw wane ne loolu amut waaye nag bu dee xel mu doonul lu jomb moom bu dee xelum kese kon moor déggul waxi bàqilaan ji bàqilaan ko fenn ne loolu day am ci àdduna loolu mu wax ko doonte waxut loolu moom moor wax gu leer waaye ni muy waxee day mel ni bàqilaan da ko wax ne ko yàlla ñu ko gis ci àdduna te loolu moom euh, waxu ko baqilaan li mu tegtaloo mooy euh, la tax la tax mu jàpp ne lu war a mën a am la loolu loo xam ne xel dëkk ko la Muusaa mi nga xam ne moo ko doon sàkku suñu borom naan ko rabbi arinaa anzur xam na li yàlla ci suñu borom subhaanahu wa taala xam ne lan mooy jaayis ci moom ko dee bu ab yonent dee sàkku rek li muy teg kon mooy loolu jaayis waaye waxut ne dafa am de باقلا تخلون نفاور اسكو انت ادنا ولا ولا منتجاك لو لوخكم جائز لرق لو مورح مني ويستحيل ان ويستحيل ان يسال نبي من انبياء الله تعالى مع جلاله قدره علو وعلو مكانه ما لا يجوز عليه سبحانه مع جلاله قدره ما لا يجوز عليه سبحانه سبحانه يعني ابي ندي سيد لو خن فك لو فك لو خن nee na loolu mu mënta am waaye bàkkaale ni waxuloon ne mukk dañuy gis yàlla ci àdduna loolu moom ba léegi texte bi néew dana jaayis la rek maanaam doonut lu lu jomb ci jëmmi suñu borom bi pour pour daf koy gis ak di si waaw waaye daal du lu jomb ci jëmmi suñu borom foofu la ci yem Euh, Mor ñëwaat na tamit ci mbirum euh, kalaamullah waxtu waxtu bari kalaam nag bëggoon naa ci ñëw ndax moom dafa am solo lool waaye nag ginnaaw defoon naa ci xalqa ci ginnaaw xam naa ku ko soxla daanaka tegtal yi ci ahlu sunnaam yëpp euh, ñëw naa ci defoon ci xalqa spécial ci mbirum mbirum kalaam yaakaar naa damaa xamul ku ma ci doon toon damaa xamul moom la woon wala beneen waxaab yi waaye defoon naa ci ba xalqa yaakaar naa ko laaj ku mel ne sëñ Alpha Diallo dana ko gis daanaka lu mu ci waxaat fii itam daanaka ku ca delloo da nga gis ma tontu woon ko naa du jar ma ci ñëwaat ñi ngi sant ñëpp